laqin lisaani waxlulan minhu loqat wajcalhu zakiran wa abad wajcal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di ziyaara eh, di bëgg ñëw di ànd yéen comme ni ko baaxoo defee di fàttalente ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu te suñu bind yi mujj yëpp ñu doon ànd ak yéen ci téeréem bi nga xam ne moo tudd Munawwiru Sudur euh, suñu bindu tey euh, di sof rek fi nga xam ne foofu lañu yemoon ci suñu bind bi mujj nga xam ne ñi ngi tàmbale woon bunt bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu def jagleel ko di ci tuddu li nga xam ne mooy nooni doomu aadama yi gën a màgg te doomu aadama war koo moytandiku bu baax a baax baax ndax ci moytu ko ci lay ame ak mucc waaye ci lay amee li nga xam ne mooy xéewal noon yooyu nag ñu tuddoon ko mu di ñeent yoo xam ne ñoo gën a e, màgg ci nooni doomu aadama yooyu muy li nga xam ne moo di bakkan ak adduna euh, ak seytaane ak li nga xam ne mooy bànneex euh, jotoon nañ ci andi ak leeral ba taxawoon ci fi nga xam ne ci la doon wax naa jihaad de buñ koy wax mooy jihaad ak noon yooyu waaye mooy jihaad ak sa bakkan ñu continuer ba tey rek sëriñ bi da wax ne fal tas juni nanga nga tëj maanaam wutal kaso bépp noon ci nooma nooni doomu aadama yooyu nga tëj leen wal tas junil kulla na nga tëj képp ci ñoom ci ab kaso wa kassir te nga damm asilaaxa seeni ngànnaay tonsam kon ñu musaleef la wa tukram kon it ñu teraleef la wa tuzfar kon da tuufu bi salaaxin ci ak yéwén sëriñ bi radiyallahu anhu nee na nga eh, wutal nooni doomu aadama yooyu ku ci ne na nga fexey noon yooyu nga wutal leen kenn ku ci ne ab kaso kaso ga nga leen di wutal soo leen ca dugalee nanga leen tëj te soo leen tëjee nanga jël seen gànnaay mooy caabi ja nanga ko damm sànni ko waaye lépp loo xam ne seen gànnaay la nanga nga fexey nga dammte ko ne na loolu de boo ko defee mooy li nga xam ne moo lay musal waaye loolu boo ko defee mooy li nga xam ne moo lay jural tedd nga waaye loolu boo ko defee ki ngay amee euh, euh, ngërëmal suñu borom bi subhaanahu wa la waaye li nga xam ne moo la fi suñu moom la la fi suñu borom wàccee te moo di jaamu ko ca ngay amee xol bu féex ngir man koo jaamu waaye ca ngay euh, ame ak dal bu baax ci mën a jaamu suñu borom bi subhaanahu wa taala ndax ñeenti noon yooyu nga xam ne ñoom lañ tudd kenn ku ci ne dafa mën a gàllankoor bu baax a baax doomu aadama ci li nga xam ne mooy ndigali suñu borom bi subhaanahu wa taala waaye it daf koo mën a gàllankoor bu baax a baax a baax ci lépp loo xam ne moo di ak topp waaye man koo jëme bu baax a baax ci lépp loo xam ne moo di ak moy kon noon yooyu nga xam ne ñooy nooni doomu aadama yi di ñeenti noon yooyu uh, nit ku ne war naa fexey uh, jàkkaarloo ak ñoom Euh, waaye fexey ba lépp loo xam ne moo lay musal ci noon yooyu nga fexey euh, ngànnaayoo loolu waaye euh, def loolu muy sa yitte ba nga mën a mucc ci noon yooyu sëriñ bi di wax ne fa nafsu bakkan in addat ndeem jalgatina alayka walif la fa joxe nanga ko xiifal Euh, talin kon dana nooy làkk ñeel la bilaa azan ci lu dul lor wa wajaan ak mitit euh, kon ngànnaay moo euh, ngànnaayul bakkan moom mooy ab xiif ki nga xam ne moom la bakkanam sono lool nga xam ne bakkan bi daf koy jëmale ci li nga xam ne mooy li ko neex rek te lépp loo xam ne moo di santaane suñu borom subhanahu wa taala mu koy dëdduloo di ko ci ñàkk a kooku sëriñ bi na na euh, la di saafaraam mooy kaso ga nga xam ne ci la mën a tëje bakkanam boobee mooy na koy xiifal bu baax a baax a baax ndax su fekkee ne yaa ngi xiifal loolee mooy li nga xam ne moo lay dimbali ba bakkan boobee bëgg-bëggam yu bëree bëree bëri da dana wàññi ko ngir lan ngir xiifal ga nga koy xiifal kon loolu den ci dégg kaso bi nga xam ne ci la doomu aadama bu mën a tëjee li nga xam ne mooy bakkan ba du mën a jalgati du mën a wàcc li nga xam ne mooy santaane suñu borom bi subhaanahu wa la mooy di ko xiifloo bu baax a baax a baax mooy di ko xiifloo euh, te it loolu lu ama am solo la loo xam ne mën nañoo wax ne sax keno yi nga xam ne moo tee tasawuf euh, xiif benn keno la ci kon loolu day wane ne bakkan mënta ñàkk ki nga xam ne bëgg naa tëj bakkanam bëgg koo téye bu baax a baax li nga xam ne moo di ak moy ak yi nga xam ne moom la bakkan bi di sopp mu koy xiifloo ndax bakkan nit ki saa boo xamee ne xiif na yu bëree bëree bëri yoo xam ne daana ko bàyyi xel di ko tal yooyu yëpp yàlla mën na ko caa musal yàlla mën na ko musal ci ak mooy bu baax a baax a baax a baax foofu itam dañuy gis ne suñu borom bi subhanahu wa taala bi nga xamee ne bind na doomu aadama euh, wax leen ne leen ndax duma seen borom ruu yi nga xam ne ñoo ñoo doon dengi dengi euh, mbugal mu ne suñu borom bi subhanahu wa taala doon na ko euh, jéem a tatbiix ci ñoom waaye mbugal ma nga xam ne ca la ba bi mu leen waxaatee loolu ñoom ñëpp ñu ruu yëpp nungul ko ne ko balaa mbugal mooma moo di xiifal bi mu leen xiifloo ñetti fan ñoom euh, ruu yëpp bi suñu borom subhanahu wa taala delloo ne alastu bi rabbikum ñoom ñëpp dañ ne balaa kon loolu day wone ne kon euh, ngànnaay wala euh, li nga xam ne moo gën a mën a yar bakkan moo ab xiif li nga xam ne moo gën a mën a xiif foofu itam dañ fi gis ne yonente bi sallallahu wa sallam daana wax ne Euh, ñun day nit lan ñoo xam ne euh, du ñu lekk te xiifuñu te suñuy lekk itam duñu du ñu suur kon foofu li mu ci jublu itam mooy tënk bakkan ba nga xam ne lépp loo xam ne mooy soxlaam moom bakkan ak bëgg-bëggam day doon loo xam ne euh, du dëppoo ak li suñu borom subhanahu wa taala digle moo tax di ko tëj ak a wutal ay kaso ba du mën a jalgati walif li suñu borom subhanahu wa bëgg loolee lu am solo la loo xam ne euh, doomu aadama bu ci ne euh, rawatina jullit bu ci ne war na cee taxaw muy wax ne laa tudd xilit taxaama bul dugal aw ñam fii batnika ci sa biir min xayri majaatin ci lu dul xiif te sixa kon danga nga wér lam amini naruma euh, sëriñ bi radiyallahu anhu nee na bul dugal saw aw ñam mukk ci sa biir lu ne danga xiif ndax aw ñam dugal ko ci sa biir te nu dudul ne xiif loola day tàyyelloo doomu aadama bi waaye day tax euh, jaamu yàlla du nekk ci am xelam ndax nit ki saa bu xiifee la muy gën a sopp rek di gën a bëgg moo di moo di nelaw te euh, loole bokk na ci li nga xam ne euh, dugal aw ñam wu bari di jël aw ñam bi lekk rek te bàyyi loole dafa bokk ci li nga xam ne day wowal ab xol kon moo tax nit ki euh, war nay jëfandikoo li nga xam ne moo di aw ñam kem soxlaam waaye bu koy jëfandikoo sax bu mu ci ëppal ndax aw ñam dafa doon loo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu nee na baril ko di ko lekk foo tollu day wowal ab xol moom lay wax ne amma taamu fa huwa yurisul fata xasawatal xalbi isama usbita euh, aw ñam de bokk na ci li nga xam ne saa bu ko kem si saxalee di ko lekk lu baree bari waxtu wu ne muy lekk rek nee na lool de day wowal ab xol waaye day tax euh, nit ki euh, tàyyeel bu baax a baax ci jaamu yàlla waaye day tax nit ki itam euh, li nga xam ne gëdd bi mu waroon a jox jaamu yàlla dëgg-dëgg mën na ko bañ a jox ndax lan ndax biir dafa doon loo xam ne saa bu feesee boroom la muy bëgg nelaw rek lay bëgg foofu itam ñu xam ne ñam woowu ñu lay wax naa la bul ko feesal ca biir sax mooy ñam woo xam ne ñam wu dagan la woo xam ne fa nga ko fàggoo fu lew la euh, nga jëfandikoo ci anam woo xam ne anam wu dagan na anam wu lew la ñam woowu lañ lay wax naa laan euh, euh, sip nañ nga baril ko di ko dugal ci sa biir di lekk rek ngir de loolu daf lay tàyyeloo waaye dafay wàññi Euh, yitte ji nga waroon a jox jaamu yàlla dëgg-dëgg loolu mën na koo wàññi te it euh, mën naa dox sa diggante ak euh, jaamu yàlla waaye it bokk na ci li nga xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu ne day wool ab xol kon loolu tax ci bunt bi nga xam ne ci la sëriñ bi radiyallahu anhu doon wax ci biir ci biir ak ñi nga xam ne loolu lañ ci war a dugal ak ni ñu ko war a toppatoo moom la ci doon wax naa laa tudxilil fil batni wala ma fihi subhatun balil xilla wila fa kul xal fa kul xalaalan ida aradta an rasula ya hada al mutia nee na su fekkee ne bëgg nga e, dugal bul dugal ci sa biir mukk ñam woo ne ñam wu araam la dama laa jël leen nga dugal ci ñam wu araam waaye ñam woo xam ne sax wuñu wu ñu cible wala ñam woo xam ne wulant la sax ne na bul ko dugal ci sa biir nee na su fekkee ne bëgg ngaa jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala jaamu ko nungu nga topp yonente bi sallallahu alayhi wasallam topp nga itam suñu borom bi subhanahu wa taala nungu ko nee na kon fexeel ba booy dugal ci sa biir na nga ci dugal euh, ñam woo xam ne ñam wu lew la waaye bul ca dugal sax ñam woo xam ne ñam wu lënt la woo xam ne kenn xamut fa mu jóge kon euh, boobu ñu loolu ñuy wax naan buñ dugal ci biir ñam wu bari loola lañu ñu ca jublu sax mooy ñam woo xam ne wu dagan la waaye ñam woo xam ne euh, euh, nit ki daf koo fàggoo ci anam woo xam ne anam wu lislaam daganal la waaye euh, mu fàggoo ko ci anam woo xam ne wu lew la mu ne walaatu xaalit bul jaxasoo saaxibal isyaani ak boroomu mooy tawaan ci ak topp maanaam ci ak coobarewu wala tamit te bul jeng li si turiyaani ñeel boroomu mbew sëriñ bi radiyallahu anhu nee na bul jaxasoo ak boroomu mooy yàlla mukk képp koo xam ne da nga xam ne kii day mooy suñu borom bi subhanahu wa taala li yàlla digle du ca nekk te li yàlla tere foo ko fekk fanga koy fekk sëriñ bi radiyallahu anhu nee na kooku bul ko topp mukk bul coobarewu mukk di ànd ak moom waaye bul coobarewu mukk di bokk ak moom ay ay jataay Euh, euh, le sëriñ bi doon wax ne wàccani bu majalisa saxaawa joojee euh, man nañ koo dugal fii kon mm, loolu dafa bokk ci jataay yi nga xam ne jataay way texee di la te sëriñ bi radiyallahu anhu doon nañu ko mooy tëddikuloo moo tax kon mu ne bul jaxasoo mukk ak koo xam ne day mooy suñu borom bi subhaanahu wa te yow ci sa coobaree bopp rek nga ko defee jàng mukk di jëm ci koo xam ne dafa bew maanaam dafa bew rëy jàppe boppam euh, euh, lu ne euh, teg boppam foo xam ne daanaka mën nañoo wax ne day nuru koo xam ne nit la koo xam ne day jàpp ne ñëpp moo leen féete kaw waaye ñëpp moo leen ëpp daraja sëriñ bi radiyallahu anhu ne na ñooñu bul di jaxasoo ak ñoom mukk bul jaxasoo ak koy mooy yàlla waaye bul jaxasoo ak borom mbew képp koo xam ne dafa bew ba nga xam ko wala képp koo xam ne day mooy yàlla ba mu wér la nit ci day mooy yàlla sëriñ bi ne na ñooñu na nga moytandiku di jaxasoo ak ñoom kii mooy yàlla nag mooy ki nga xam ne yàlla lii la digle mu wàcc ko fa dem di def leneen yàlla digle julli euh, dara jotu la nga lànk bañ a julli loolu ak mooy yàlla la waaye yàlla araamal sàngara ci julli nii nga lànk ne da nga koy naan loolu itam ak mooy yàlla la ak yeneen yu bëree bëree bari yoo xam ne bu ñu ko doon lim du jeex kon képp koo xam ne gis nga muy def lenn loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo tere kooku ci ak mooy yàlla la ne su fekkee ne jaxasoo gi ngay jaxasoo ak moom mënut soppi ci moom dara euh, ngir nga jubal ko wala nga gindi ko kooku sëriñ bi nee na bul ànd ak moom mukk képp koo xam ne itam xam nga ne kii dafa bew euh, day euh, day màgg màggalu ci kaw nit ñi day yëkkati boppam ci kaw nit ñi day ëpp ëpp lu dara ji ci kaw nit ñi kooku itam sëriñ bi radiyallahu anhu nee na bul jaxasoo ak mu mukk mu wax nag ne saa boo xamee ne ab dogal euh, xëcc na la ba nga jaxasoo ak kooku sëriñ bi radiyallahu anhu nee na nan ngay def bu boobaa moo tax mu ne amma isa xaalatta karhan xayra man xat kaana abidan li aqdaari zaman فلازم الإيمان والإسلام وخير إحسان ولن تلاما nee na saa boo xamee ne nag yàlla dogal na nga jaxasoo ak ñoo ñu mu la wax ci ak forcé maanaam jaxasoo woo ak ñoom ci sa teeyu bakkan waaye ci ak forcé nga jaxasoo ak ñoom moo xam da ngeen a bokk fu ngeen di liggéeye wala da ngeen di bokk fu ngeen di daje foo xam ne mënuta ñàkk ngeen fay daje kooko day saa boo xamee ne e, ab dogal moo tax nga daje ak moom te moom bokk na ci ñi nga xam ne euh, farataalu ñu jaamu yàlla waaye du ñu gestu li nga xam ne mooy ndigali suñu borom subhaanahu wa taala ak mooy rek la ñuy jëfandikoo sëriñ bi radiyallahu anhu ne na kooku saa boo xamee ne jamono dajale na leen doxloo leen ba ngeen daje te mënu leen a ñàkka bokk ab jataay sëriñ bi nee na nanga nga taqoo bu boobaa ak ngëm yàlla ak aqida gu mat sëkk muy pas-pas bu mat sëkk waaye na nga takkoo islaam ju mat sëkk waaye na nga takkoo li nga xam ne mooy ak rafetal ba fa rafetal ma mën a yem nee na loolu de boo ko defee kenn du la yedd moo tax mu ne ama isa xaalata ndaal ndeem jaxasoo nga ak ñooñu nga xam ne moom la du sëñ bi wax mooy koo xam ne borom mooy la wala koo xam ne boroomu mbewte la kër xan ci ak forcé mooy loo xam ne du sa coobaree bakkan xayra man kaana kudut koo xam ne abid euh, abida nekk na di jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala di aqdaari zaman te dogali jamono rek moo tax ngeen daje euh, yaa kookee di jaxasoo sëriñ bi na ne bu boobaa la ngay jëfandikoo mooy fa lazimil imaana na nga taxoo ngëm yàlla gu mat sëkk na nga taxoo aqida ju mat sëkk wal islaama ak lislam ju mat sëkk wa xayra ihsaanin ak ngën gi rafetal sëriñ bi na na loolu de boo ko defee walantu laa ma kenn du la yedd kon euh, léeg xañ na euh, ab dogal euh, nattu doomu aadama bi ba mu tasee nga xam ne ñoom la ko sëriñ bi radiyallahu anhu doon aaye ñu jaxasoo ak moom waaye saa bu la dogal dajalee ak ñu mel noona fexeyal nga taqoo ak aqida muy pas-pas bu mat sëkk ngëm yàlla gu mat sëkk waaye fexeyal nga taqoo sa lislaam ju mat sëkk Euh, waaye tax fexeyal nga takkoo ak li nga xam ne mooy sa lexsaan ju mat sëkk kon foofu lim la fiy digal rek mooy ñetti xaaj yi nga xam ne moom la ñuy xaaj diine mooy iman ak islam al ak ihsaan saa boo dajee ñu mel ne fexeyal ba loolee nga gën koo dëgëral ci sa bopp waaye gën koo sàmm bu baax a baax a baax waaye ñooñee buñ la fab bi buñ la fëkk di leen yóbbu ca la nga di la yóbbu ca la nga xam ne ñoom ca la ñu nekk moo tax mu ne wax xaaliti na jaxasoo al julit ba bi taawuni ci ak dimbalante amma alal azan ndaal ci ay lor nag falaa taawunu bu leen ci dimbalante nee na sooy jaxasoo ak jullit na ngay jaxasoo ak moom di dimbalante ak moom waaye bu leen di dimbalante ci ak mooy yàlla bu leen di dimbalante ci ay bàkkaar bu leen di dimbalante ci ay bu leen di dimbalante ci li nga xam ne moo di ay lor loolu mooy li suñu borom subhanahu wa taala di wax ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan na ngeen di dimbalante ci ak mbaax ak ragal yàlla waaye bu leen di dimbalante ci li nga xam ne mooy bàkkaar ak li nga xam ne moo di ak noono kon na nga fexey ba euh, boo nekkee ak ab jullit ngay dimbalante ci ak moom ci Euh, ak mbaax ci lépp loo xam ne lu baax loo man ci sa diggante ak moom ci lu dagan nga fexe di ko dimbalante ci ak moom di dimbalante ci ak moom ci di laabirante di fàttalante ak moom ci li nga xam ne mooy ragal suñu borom subhanahu wa di di fàttalante ak moom ci li nga xam ne moo tax suñu borom subhanahu wa binduñu andi ñu fi waaye itam di ko euh, moytandikuloo it bu baax a baax ci li nga xam ne moom lañu suñu borom subhanahu wa taala aaye waaye lépp loo xam ne mooy lor te nga man ko koo fegal nga fexey di ko fegal te euh, bul ko noonu mukk euh, bul noonu ak jullit mukk ndax suñu borom subhanahu wa taala li mu ñu digal ci suñu diggante mooy ñu jàppalante waaye ñu dimbalante comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon waxe ci xadis ne al muminu lil mumini kal bunyaani yasuddu baaduhu baadan euh, ab jullit day ak moroomum jullitam dañoo war a mel ni ab tabax Euh, nga xam ne mu mool woo teg rek day boo tegee morom ma dañuy dëgëralante waaye dañuy jàppalante euh, ba tabax ba mën a taxaw kon jullit ñi su fekkee ne noonu la ñu jàppoo noonu la ñu noonu la ñuy dimbalante kem ni nga xam ne noonu la ko lislaam digle te yonente bi sallallahu alayhi wasallam feddali ko bu boobaa euh, njariñ rek lañ ciy jële waaye boobaa itam fayuk yàlla rek lañu ci jële kon ñu ngi tuub bu baax tey jéggulu di wàcc foofu suñu kàddu di wax ni uride lil islah ma sata'tu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ala sahabati wa sadati kullihim ridwanu rabbil aradi wassamawati على الصحابة والسادات كلهم ridwaanu rabbil araadi was samaawaati